فريق واسع ويفاضل ووزيرة حمد لطيف taxoon ñuy euh, boo accident amee ci kaw nit ñaa ngi nii bëgg a dugg ci biir pour xet lii ñi nga xam ne ñoo ne woon ci oto bi mënuñu woon a dugg ci biir malheureusement oto bi euh, bi mu mbakkaatee ci deuxième bord nii porte yi dafa ubbeeku bu ko defee ñoo ci nekkoon ñëpp euh, yàlla dogal nag génn nañ salaam ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu oto bi nag Mercedes la mais fi mu toll nii moom Euh, mën na teesu koo xamee ndax tàkk na bu jeex tàkk dara dara dara génnu ci euh, donc mu nekk mbir mu doy waar fii ci autoroute Ila Touba bi ci côté commune Réfane bi euh, vraiment nekk na jafe-jafe boo xam ne aussi ñoo ñëwoon pour bëgg leen a wóolu pour ñu am fu ñu jaar ba wóolu leen sax day xaw a jafe parce que boo xoolee ñi xaw a nekk ay xele mën a yéeg ci giliaas yi rek ñoo mën a dugg ci biir mais ñu ci ëpp dañoo taxaw ci ginnaaw giliaas yi parce que mënuñu amuñu kattan naa ñeen la ñi nga xam ne ñoo waru Euh, donc ñoom ñu ngi ñëw doon nimeku si li nga xam ne am na fii numéro matricule oto bi moom moonate su koo xam euh, bëgg nañu jël numéro bi pour mën a xam euh, ban numéro la marque oto bi nag Mercedes la mais numéro moom matricule oto bi moom wax dëgg yàlla lépp yàqu na ndax oto Euh, moment yi ñu toll sax euh, takk na ba seey euh, mu amee fii ci commune u Réfane ci kaw autoroute Ila Touba bi amee ci distance bu sori kaw sax boo xam ne boo xoolee oto bi fi mu njëkk a dal ci boddin yi bu fi daanu woon musiba mënoon na am mais heureusement bi def am njàmbaar dafi pexeem ba mu ñëwaat deuxième phase bi ci la oto bi commencé tàkk ñi ci nekkoon nag yàlla dogal na sowe nañu ñoom ñëpp wax dëgg yàlla loolu ñu ci ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di waxaat chauffeur si aussi di leen lancé waat message ñuy faral di def ndànk ci Ila Touba bi Euh, parce que boo toppee neexitu tali bi euh, mën nga sànq sa bopp euh, tali bi tali bu bees la ba pare dafa bari ay virage donc ñi nga xam ne xamaguñu ko aussi buñ ci jaaree nañu ci daw ndànk da ciy am solo trop ndax fan yi gis nañu ne yu bëree bari Euh, mu ngi am ci kaw autoroute Ila Touba bi euh, bu ko defee ñi ci ñi koy jëfandikoo euh, ñu ciy bàyyi xel di ko sóoraale bu baax a baax fi nu nekk nii nag ñu ngi taxaw ak men magum Baye Fall ñu koy wax sunu sëriñ Baye Bada Ndiaye moom ñëwoon na bokkoon ci ñi wàllu si ñi nga xam ne ñoo def mbir moomu ñu bëggoon a waxtaan ak moom tuuti rek mu wax ñu ci xalaatam sëñ bi ñu ngi lay nuyu asalaamaaleykum salaam wa rahmatullahi doom yàlla nga gudd fon amiin amiin ndax ji jay la mhm. lii doo nga a faj mhm. nun ak njanjaar ak saamel ngom mhm. saamel ndur pay si njaan mhm. cola caacaw nduktaan mhm. nun nigi bi oto baa ngi nii daanu di lakk dégg nga maam nun bàyyi faal yi muriti décret fan nga xëy sëñ Tuuba dong la ñuy nekkee jàkkaarloo ka mbake mbake ni otoom di takk nu di ko génne xam nga ne lu miti la to su fekkoon ne am na nu fu nu jaar dañu yenu ay paan ñi yenu ay siwo nu dik fay oto bi waaye lii nu miti nu nguur gi may nu ngir yàlla ak bu yoon nu mun su amee nu dikk mm-hmm. lii dem moo nu gënal wax dëgg yàlla mm-hmm. to ñun sëñ Tuubaa ak si xebre rek la nu gëm mm-hmm. sëñ bi mhm. dima ci lu nu jale fii mhm. gune yaa ngi no toyi feer mhm. lépp ak fii wax dëgg nanu waaw mu nekk jafe-jafe bu mit amit amit mag ñi xam nga ne kii may waxat tey mu ci biir gidaas mais li fi dugal tey dafa yéeg maa ngi ci juróom ñaar fukk ak juróom benn bari na ñoo xam ne aussi ñu ngi te mënuñoo yéeg ci gidaas yi donc kon tey accident bi tey bu fekkoon ne xale yi ne ko ñu fi oh, dana gën a métti trop kon euh, euh, ñuy lancé waat message encore une fois jëmale ko ci état bi bu fekkee waa Refane euh, seen commune ak ni mu toll war nañu mën a xalaat loolu defal leen boo xam ne pont wu kaw lay doon boo xam jafe-jafe bu amati ci Ila Touba bi niñ ko mën nag magum Baye Fall la dëkk ci dëkk bi di taalube yàgg trop ci Refane xam wax dëgg yàlla askanu Refane ak ak murit gi ñu doon ak taalube Sëñ Bamba ñu doon mbir mi nag da mitti nu lool nag mm-hmm. mitti nu nag mm-hmm. mitti nu mm-hmm. dimal leen nu ngir yàlla ak dimal leen nu ngir yàlla ak to kat leen di nag to lii kat nu Tuuba su fekkee lii la def suñu yóbboo ma dee xam ci nguur gi dara loolu moom am na ci solo moom ndax dara da xam dootu ngoon xam jël say kaar di ko woteel doomu nga bëgg mënoo ko am du sotti du sotti du sotti waaw looy tàggoog waa Refane kon li may tàggoog waa Refane nag na leen góorgóor topp am pos pos sunuy doom a fi nekk mm-hmm. sunuy bokk a fi nekk mm-hmm. nu war di dem lante mm-hmm. di wax lante tomo natunu ko nguur gi dog na lu nag baaraas mu ngi mel ni senegal ak Gambie waaw loolu de am na moom Sénégal ak Gambie la nu doonati de tomuy tomuy reefan képp ngeen baal max nag jërëjëf jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu jërëjëf Baye Badara Diouf Ila Touba autoroute Ila Touba vraiment bari na ay blessures bari na ay jafe-jafe bari na trop ay accident euh, depuis nawet bi commencé ak léegi euh, tey ji nag firnde la ci euh, ñu ngi fii ci commune Touba Refane am face Thiola ci giinaaw autoroute Ila Touba fi nga xam ne fi la ñu def mal bi nga xam ne fi la waa Refane di jaare Euh, mu nekkoon benn oto Mercedes boo xam ne vraiment sooge na fi soog bu méttee métti ndax euh, euh, tàkk na bu seey daanaka amoon nañ ni ñeenti nit ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir kese kese ñoo ci génne à part loolu dara dara génne wuñu ko donc mu nekk mbir mu doy waar moo xam ne am na fii tey ci kaw tal gàcci nga laama yéen yéen yi nga xam ne tey yéen a taxaw taxawaayu pompier soowee ñi nga xam ne aussi ñoo nekkoon ci biir oto bi fexe ba oto oto bi tamit wax dëgg yàlla benn gaañu gaañu nit amu ko ci loolu tamit ñu ngi ciy santaat waa Refane di leen gërëm rafetlu seen taxawaay bu baax a baax mu nekkoon nekkoon seen xarit Mbaye Diouf Refane TV ñu ngi leen di siyaaraat bu baax di leen tuubalaat di leen jéglu di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa bu ci kanam فاضل وما زلنا